ba tey ñu toll ci sunu dars allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ma yenent bi xamal na ma ne bokk na ci li may dimbali ginnaaw weeru koor ci sama jaamu yàlla mooy as suxbatu saaliha mooy ay àndandoo yu baax ay àndandoo yu gëm yàlla ay mbokki jullit yu gëm ne man moo tax moom yonent bi mu ne ma laa tusaaxib illa muminan wala yakul taamaka illa taqiyi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma bul ànd ludul lu ku gëm yàlla bu mu lekk sa ñam lu dul ku ragal yàlla njàngaleenu nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ab jullit mbokkam jullit bu gëm ni moom bu mbokkal pas pas moom la war a àndal lan moo tax ar rasul salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di ñu utloo ay àndandoo yu baax Cheikh Ouseymin nee na xëral yow jullit di ànd ak ay nit ñoo xam ne ay nit yu yiw lañ ay nit yu baax nit ñoo xam ne yursidunaka isa xawayta danañ la jubanti boo dëngalee du yahdunaka isa dalalta soo réeree ñu tegaat la ci raay bi ñooñu ñooy mbokk ñooñu ñooy àndandoo wa yudakkiruunaka ida nasiita soo fàttee ñu fàttali la wa yuallimuunaka ida jahilta soo xamul ñu xamal la ndeke àndandoo bu baax dafa am ay keno dafa am ay ponk ku bëgg xam ki ngay àndal war nga ànd moom wala waroo ànd moom xool ko ci ñeent yii ndax boo jàddee dina la jubanti dana la wax dëgg ba nga xam ne nekkoo ci yoon ndax boo réeree dina la orienté waat xamal na ne danga réer nekkoo ci dëgg boo fàttee ndax dina la fàttali ndax boo xamul dina la xamal yow sama mbokk jullit yëgal ne àndandoo bu baax yonent bi def ñu ko tànnaloo ba jox ñu ci ay misaal ci jaaykatu parfon ak defarkatu fourne mu ne ñu àndandoo bu baax mu ngi mel ne jaaykatu parfon benn mu may la ci parfon bi wala xet gu neex bàyyeekoo ci moom ñëw ci yow waaye jaaykatu furno uppkatu furno moom mu ngi mel ne àndandoo bu bon bu lakkut sa yére it xet gu naqari ngay am ci moom loolu tax jullit bi ginnaaw weeru koor na fexe ñam doon àndal ci koor gi daan ànd ak ñoom ci conférence yi daan déglu dars yi daan dem ci jàkk yi dinaa naafile di julli na góorgóorlu continuer ànd ak ñooñu ndax ñooñu kat dañoo mel ne biddéew bu sa gaal réeree wala sa bato réer ci biir géej biddéew yee lay jubanti ëllëg dangay ànd ak ñoom ci keppaaru yonent ci keppaaru yàlla ca suufu arsh waay waay ndax du doy ñu nekk xarit koo xam ne da ànd ak moom ba ëllëg ci keppaaru borom bi tabaaraka wa taala nga ànd ak moom foofu xataada nee na ñun de giñ naa ci yàlla ne gisuñu waa ju baax lu ko nit jënde ci njëg jar na ko fa saahibu assaalihin ngàllawaay ànd leen ak ñu baax ñi min ibadillahi ci jaami yàlla yi moo xam góor lañ moo xam jigéen jigéen ju baax na ut àndandoo bu jigéen bu baax muy ànd ak moom góor gu baax na ut waa ju baax muy ànd ak moom laallakum an takunu maahum aw mislahum soo àndee ku baax daf lay baaxal boo àndee ku bon mu sànk la mbokk yi ci yàlla àndandoo bu baax dafa bokk ci ay jumtukaay yoo xam ne day dimbali nit mu sax ci jaamu yàlla doy na rekk qissatu asxaabul kaaf allazina sabatu fil fitan ñi nga xam ne saxoon nañ ci fitna ba mu amee lan moo leen ko dimbali mooy àndandoo yu baax ñoom ñu baax ñooñu ñoo ànd loola tax sabatu fil fitnati diini bil amri bi suxbati saalihin sax nañ ci mbirum diine lu tax dañoo am groupe gu baax ñoom ñoom ñu bokk pas-pas ñu ànd nekk mbooloo ñu mën a muñ métit yeeg coono yi mbokk yi kenn ku nekk ci ñun góor nga walla jigéen àndandoo bu baax xarit bu baax dafa am importance ci sa dund àndandoo bu baax danga koy aajowoo kon saa yoo gisee lu lay dimbali walla nga gis ku baax fexeel nga toqoog moom ndax daf lay yokk waaye du la wàññi àndandoo bu baax day jël sa xol yóbbu ci yàlla wëlbati ko ci àdduna ak poñetu àdduna ak ay caaxaani àdduna àndandoo bu baax daf lay orienté nga nekk ci dëgg alquran moo ñu nettali is yaqulu li saahibihi la tahzan yonent bi ba mu amee àndandoo bu baax muy aboubacar ni saddiq bañ nekkee ci xunt ba abu aboubacar am jafe-jafe di wax yaa rasulallah danañ ñu gis danañ ñu rey mu ne ko laa tahzan gis nga àndandoo bu baax mbokk yi àndandoo bu baax dafay dimbali nit ci jaamu yàlla àndandoo bu baax day tax doomu aadama du wéet ci yoonu yàlla àndandoo bu baax day tax doomu aadama nangu dëgg dund dëgg topp dëgg as-suhbatu saalih ni'ma àndandoo bu baax mbokk yi xéewal la wa saada texe la wa raaxa noflaay la wa rahma yërmande la wa ifaadatun mutamayiz waaye da yokk ci moom ba ñëpp ràññee la gis nga abubakarin saddiq fu mu génnoon ñu ne kee mooy ànd ak yonent bi allahu akbar àndandoo yonent baa nga ne àndandoo yonent baa nga ne fu usmaan génn ñu ne kee mooy ànd ak yonent bi fu ali yi génn ñu ne àndandoo yonent baa nga ne mbokk yi ci yàlla ginnaaw weeru koor su jullit bëggee sax ci jaamu yàlla na wut ay àndandoo yu ko ciy jàppale àndandoo yam doon àndal ca koor gay woor ca jàkka jay naafila ca waaraate ya ca naafila ya ca jàng quraan ya ca déglu quraan ya continuel yow sama mbokk ànd ak ñooñu déglu ñoonu yal yàlla boole ci ñooñu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa